jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte nuñ leen koy defalee saa su ne mbokk yi tey nag dañoo génn dem ba côté fi nga xamante ne mooy booru Mamel seet si fi kenn koo xamante ni euh, ñenn ñi xam nañ ko ci làmb waaye ñu ci bari kenn du leen ko présenté ci làmb euh, muy suñu papa di suñu xarit di Serigne Fallou Serigne Fallou dinañ ko bàyyi mu présenté wu euh, wax moom mooy kan Serigne Fallou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay ji bi hmm. maa ngi tudd Mamadou Falilou Diop. Hmm. nekk secretaire général u écurie Sàkku Xam-Xam bu Birahim Ndiaye euh, nekk maanaam administratif mm-hmm. lépp loo xam ne lii lu jëm ci ay këyit la ak yooyu mu nekk koo xam ni yàlla daf ñu boole. Mm-hmm. mu yàgg depuis Sonatel mm-hmm. depuis 1985 euh, bëggoon naa làmb comme comme doomu Dakar yëpp Sénégalais yëpp parce que Gueule Tapée laa juddoo maa ngi Gueule donc bëggoon làmb waaye Biraay moo développé loolu ci man parce que bi ñu nekkee Sonatel. dama ko dama dama ànd naax moom ay quelques combats. Euh, vraiment après ak lu dox suñu diggante diggante mag rek ba bi muy créé écurie vraiment ma ñëw jàppale ko ci parce que amoon naa tuuti expérience ci mouvement associatif. Mm-hmm. donc diriger naa ay association créer naa ay association mhm. Sonatel maa doon président association bi mhm. teeru Soumbédioune équipe bu troisième division maa ko yoroon mhm. euh, yoroon naa aussi Ligue de Dakar sport travailliste dirigé naa ko pendant douze ans donc loolu yëpp jox ma tuuti expérience boo xam ne bu muy créé écurie ñu ànd doo ñu créé ko loolu moo vraiment moo ma dugal vraiment de manière active fi mu toll nii ci biir làmb tey su ma la doon laaj ci Père Birahim tuuti rek euh, comme am yooyu yëpp ban combat moo la ci gën a marqué. waaw yi ma ci gën a marqué yi ma yi ma ànd ak moom quoi. Hmm. cest à yeneen combat yi dama ko daan suivre nii rek de loin. yi nga mais yi ma ànd ak moom yi ma ci gën marqué combat ma Langsaane la. waaw parce que boobu dañu def mobilisation bu rëy waa Sonatel. Hmm. ñu ñëw fees yi. ñëw combat bi xawoon metti parce que Langsaane daf ko touché. Hmm. bu ñu ko touché jàpp ko ñu def ne Ibrahim kaawu na. donc euh, foofu tamit Birahim wane fa xarañ boo xam ni. Mm-hmm. fexe ba jàpp ko retourner situation bi. Mm-hmm. donc daal di daal di am ndam ci moom mu nekk loo xam ne lu rayon de Sonatel. Mm-hmm. waaw combat bu mu marqué na ma. ndam boobu loo ci yëg bi mu bi mu amee ndam. waaw waaw bi mu bi mu amee ndam vraiment euh, ci la ci la ñu yëg fibre ne bëgg nañu làmb. parce que ànd ak nit dem këram mu mu solu. bi muy génn yooyu yëpp jour boobu laa dundee loolu quoi. mu solu di dem bi muy génn waa kër gi. jabar ji am vraiment nga gis tristesse ci mhm. ci waa kër gi mais loolu lu atmosphère bu doy waar la mhm. alors ñu ànd dem làmb ja jour boobu sax dama wàcc ah mhm. <laughs> dama wàcc bi muy bi muy tuus sax maa ngi sol costume mais maa ngi ci gannaaw di dox waaw waaw donc vraiment mu nekkoon expérience boo xam ne bu doyoon waar la ko waaw waaw waaw tey nga gis làmb ni mu mel ak euh, làmb démb boo koy wax combat Père Birahim ak ak ak yeneen combat yoo xamante ni euh, jot na am ak par rapport ak làmb ji nii fi mu toll nii euh, am nga mbër actuellement ni ci làmb. waaw am na am naa mbër bon man Yékini moo doon sama mbër ah. vraiment bi parce que Yékini waa Gueule Tapée la hmm. donc. am na yu bëri yoo xam ni bi muy commencé làmb maanaam sama benn xarit moo ko daan defal sax am na yenn. Hmm. demande de parrainage lettre yooyu yoo xam ne dañ ko daan def biir Gueule Tapée donc euh, avant nii Robert nekkoon na sama mbër bien ko man suma yaay euh, maam góor gi kiyam la nijaayam la. donc euh, mais man Robert laa daan faral quoi nekk xale. Hmm. seen combat 1968. Hmm. ci fi cinéma magique nekk mooy HLM HLM 5. donc boobu ay xale la ñu. donc yooyu yëpp fat fàttaliku naa ko quoi. mais Robert nekkoon na sama mbër euh, Yékini nekk sama mbër donc euh, après daal gannaaw si gi même Birahim avant vraiment may kii ak moom. Mm-hmm. daan naa faral màng 2. màng 2 aussi waaw waaw vraiment mbër bu ma kii woon la quoi. Mm-hmm. mais gannaaw si gi nag franchement bon du ma du ma du ma du ma du aw ma mbër nii bu ñuy wax quoi. Mm-hmm. parce que bi Yékini bàyyee bon. donc finalement comme dama doon encadré aussi nekk ci biir. ñoom ñoom kii ñoom euh, Birahim. Mhm. donc mbëru ñoom mbëru Birahim yi ñoom Pam Mourlo ñoom euh, euh, mu tudd Saalum Saalum. Mhm. sonn nañ trop ci moom. Mhm. ak Moussa Dioum ah defe naa Moussa Dioum. ak Moussa Dioum waaw ak Moussa bon vraiment ñooñu. tamit daan naa vibrer bu ñuy bëree. waaw ah, bien que comme ni ma la ko waxee rek dama ci excès noonu par kii quoi. waaw ah, ñooñu daan nañ ma vibrer loolu Moussa Dioum maa ngi fàttaliku combat ma tonnerre. bi ñuy bëree mu ma fekk màkk. combat boobu mu nga fekk màkk mm-hmm. waaw julli timis maa ngi ko defee ci kaaba ji ma julli ba pare euh, ma xama Ibrahima mm-hmm. ma def ma gaawantu def fa ñaari rakk ñaanal Moussa Dioum mm-hmm. ñaanal Moussa Dioum donc nga xam ni boobu aussi am na fu fu ma làmb yeggoon mhm. yàlla def musaa Dioum combat boobu mhm. eh, mu daan ko quoi mhm. donc loolu aussi ñu koy ku ku ku bu dal mooy seen combat bi ñu bëree defe naa Kaolack la xaw ma waaw donc euh, waaw waaw loolu yëpp Birahim daf ko développé ci man quoi ndax mbër yi bëgg leen aussi di leen di leen conseiller di leen jàppale donc dund naa loolu quoi. Euh, dafa am loo wax sànq lu am solo léegi dama bëgg a dugg ci par rapport ak euh, boo xoolee le 31 euh, octobre nee nañ ci la mandat ki nga xamante ne mooy président Alioune Sarr di jeex am nga ci gis-gis. waaw am naa ci gis-gis kay bu bu yaatu sax parce que bind naa ci dans un journal def naa mm. benn contribution ci sunu làmb wax quand sama xalaat. avant parce que tamit ñun dañu bokk ARELS. Hmm. sunu écurie Sakku Xam-Xam dafa bokk ci association des des responsables et. waaw du hmm. du de de lutte ARELS nga xam ni Malick ñu ngi moo ko jiite. Hmm. gannaaw su am nañ ci position man avant loolu aussi génn naa ci sama position. wax ci sama xalaat daal du position sax mais xalaat la parce que làmb ji. Euh, comme CNG bi parcours am dafay jeex. donc dañuy dañuy seetlu dañuy taxaw seetlu. Hmm. donc dañu nekk ci régime d'exception xam nga CNG boo gisee état di ko di ko taxawal mooy structure boobu fédération bi dafa am jafe-jafe. Hmm. boo amee jafe-jafe nit ñi jubóowuñu seen biir état dafay taxawal comité national de gestion. Hmm. mais dafa war a nekk loo xam ne ni dans le temps dafay warul durer. fay nekk deux ans trois ans le temps que ñu normaliser structure bi. daal di leen delluwaat ñu nekk fédération. donc loolu mooy mission fondamentale lu comité national de gestion. Mm-hmm. mais làmb dafa xaw a particulier. Mm-hmm. làmb du comme yeneen activités yi ba tax na CNG bi yàgg fi parce que acteurs yi euh, écurie yi. Mm-hmm. Euh, wanewuñu woon da euh, maanaam par bi par parloo bi dafa bari ba nga xam ni boo fa jëlee nit ne ko jiital. bu jiitee dina am coow. maan loolu moo tax structure CNG bi yàgg fi. bien que Alioune Sarr bi ñu koy jël. ci écurie la jógee écurie séeréer. mais bi mu ñëwee bon dafa reculer foofu ba pare aussi wane mat dafa wane mat parce que Alioune Sarr aussi leader la. Mhm. leader la meneur d'hommes la manager la. Mhm. parce que diir bi mu ko yor nii yëpp. ñu ne lépp mat na mais am na loo xam ne stabilité boo xam ni. Mhm. indi na ko te loolu ku ku am ku xarañ. am personnalité am am dayo moom mu ko mën. parce que vingt quatre ans nga yor ko benn structure d'exception. te kenn waxul nit ñi à peu près d'accord ci yow. mooy am nga ay qualité mhm. ay qualité moom vraiment am na ay qualité mhm. maintenant nag lii dafa war a nekk loo xam ne dafa war a jeex mhm. ñu delloo acteurs yi euh, seen yëf mais delloo bi yëpp nag man sama xalaat bi ma ci amoon te après bi ñu waxtaanee ci biir ARS ñun ñëpp ñu d'accord ci mooy nañu def euh, co gestion sa c'est-à-dire xam nga yeneen fédération yi acteur yi ñoo ko yor boo demee football footballeur yi rek as équipe football yi ñoom ñoo yor fédération bi nga dem basket noonu la mais làmb dafay dellu ci structure bu njëkkoon bi ci conception bu njëkkoon bi kon conception bu njëkkoon bi mooy cogestion maanaam ministre bi dafay am benn wàll par exemple bu ñu nee tey euh, commité directeur wu fédération day nekk trente personnes ministre bi dafay jël dix yeneen vingt yi mu jóge ci acteurs yi mhm. bu ñu dajaloowee noonu lañ daan former fédération mhm. donc làmb ji comme dafa particulier Euh, sama xalaat ak xalaatu ñun waa ARELS dañu ne nañu dellu ci loolu. Mhm. nañu def cogestion maanaam ministre bi am benn quota. Mhm. et même ñu dem ba ne sax ci quota boobu président CNG na fa génn fa président CNG génnee bi yeneen quota yeneen yeneen yeneen membres yi ñu dem élection ñooñu complété bureau bi. Mhm. mais toujours ñun war nañu d'accord ñun waa làmb. ne kiy jiite bu mu jóge ci ñun bu mu jóge ci écurie yi. Mm-hmm. na jóge ci ministre bi mais làmb dafa war a avancer ci côté démocratie mm-hmm. côté démocratie maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy acteur yi war nañ leen jox aussi gëdd mm-hmm. mu commencé ci tànn bi waaw loolu dafa nekk xalaat boo xam ni euh, man dama doon xalaat naa ni war na mun a nekk nañu dañuy delluwaat CNG mais war na am ouverture démocratique bu ndaw benn porox ndoll boo xam ni ñi nga xam ne ñoom ñooy acteur yi écurie yi ak euh, école de lutte yi ak même manager yi promoteur yi ñooñu ñëpp. Mm-hmm. ñu am benn bunt boo xam ne dañ fay dugg de manière démocratique. Mm-hmm. bu ñu duggee ñu participer ci élection bureau bi di participer ci xalaat yi. Mm-hmm. di participer ci vie wu euh, man nu ma koy tuddee mooy mi fédération quoi. waaw donc loolu nekk na man suma xalaat. waaw ñu bañ a rek sax ci toujours kenn nit ministre bi fal ñëpp ñi nga xam ni ñoom ñoo koy diriger. ba ñu ci des seen xalaat kenn du ko jël en compte. Mm-hmm. ñu am kàddu xam nga loolu tamit ci mouvement associatif dafa xaw nekk lu doy waar. Mm-hmm. ministre bi euh, en fait moom fan fan la jóge boo koy xool ci nawetaan la jóge mm-hmm. xam nga nekkoon na président nawetaan nekkoon na président commission finance yoroon na fa ay post yu bëree bëri. mais foofu mu jógee xam ne ne démocratie moo fa nekk. c'est-à-dire délégué yi ñoom ñooy fal ba ca kaw. di fal di falante ba ca kaw démocratie pleine et entière la. donc moom xam naa ni bëgg-bëggam loolu la mais gis na ne làmb dafa particulier ñun tamit nangu nañ ne làmb particulier na mais ci kaw loolu yëpp aussi nañu aménager benn espace bu ndaw boo xam ni acteurs yi nañ ci dugg de manière démocratique bon man xalaat naa loolu bi ñu demee au niveau ARELS aussi yokk nañ ci sax ne euh, su fekkente ni mënuñu mënuñu mënuñu dem ba ci loolu en tout cas représentativité wu écuries yi ak école yi. na bari dans le comité directeur. loolu demande nañ ko ministre bi tam. vraiment bu fekkee dem na bay copte aussi nañu nañu xool aussi écuries yi ak écoles yi. ñu jël fa ay ay ñu ñu takku parce que ñi nekk ci école yi ak écuries yi dootuñu comme ña fa nekkoon y' a vingt ans trente ans. Mhm. parce que dans les temps ñi yoroon écuries yi. bon peut-être ñoo xam ne ñii seen mbër di bëri rek moo leen intéressé woon. Mhm. mais actuellement ay managers ñoo nekk ci écuries yi. ay ñoo xam ne da ngay gis ay jeunes yoo xam ne vraiment jàng nañ ba sori am nañ expérience. Mm-hmm. donc xam nañ luy association. ñu ngi jéem a teg seen ay mbër ci ci ci ci ci ci yoon. association yi ñu ngi dox. donc ci kaw loolu ñun yaakaar nañ ne war na am daal ouverture mm-hmm. mais sëñ Fallou li li yi ñu ci bari ñuy ŋànk ci làmb koo ci wax mun ne la euh, suñu papa Alioune doy na dafa war a dem dafa war a dem euh, est-ce que dàqoon nga ci loolu dàq nga ci mu dem wala mu toog. waaw mu dem wala mu toog xam nga mun nga ci d'accord comme mun nga ci bañ a d'accord mais ministre bi ci boppam. Hmm. comme moom mooy tànn. bon moom mooy moom mooy tànn mais man damay dem sax plus loin peut loo xam ne lii dama ko xalaat fan yi hmm. dama doon wax ni sax man bu fekkantoon ni euh, dañuy dem ci fa phase de transition maanaam mandaa bi ñu jëm nekk mandaa boo xam ni dañ ci war a préparer. Hmm. pour dem ci fédération dama doon wax ni moom am na dayoo sax am na capacité. donc diriger pour deux ans yi. pour ñu dem ci transition. waaw waaw parce que aussi nit ki c'est vrai que duré na. Hmm. mais aussi am téye na yëf yi. bien que mu ngi mu ngi nekk ci situation bu anormal comme ni ma la ko waxee. Hmm. mais ci biir loolu yëpp aussi téye na ko. Hmm. te transition lañ jëm inévitablement. cest à mission bii ñuy jox CNG bii di ñëw. ci biir lettre de ci biir euh, kii am euh, lettre de mission dina ci bokk mu préparer. mu préparer lu jëm ci fédération. Mhm. donc loolu aussi moom tey bu toon mun na liggéey ci loolu xam nga ku fi toog 24 ans toogaat fi un an ou deux ans donc du dara bien que moom. Euh, am na lu lu mu réussir réussir na lu bari mais am na lu mu réussirul. Ah, mais dégg nañ ñu ne euh, am na ku jege ci ministre bi fan yee génn na ba ni bu ñu xalaat làmb dem fédération làmb moom du mus a dem fédération CNG lay dem euh, ba sëñ Bass mii mu ngi ko doon wax ci biir wax ji naar bu ndaw bu lu mu wax ci bu mag bi la ko déggee est-ce que est-ce que fi mu toll nii dafa mel ni dañuy rester nekk ci CNG bi mais duñ dem fédération de. waaw parce que pour dem fédération dafa am ay préalable CNG bii bii fi jógee mandat bi mu toog dafa waroon liggéey maanaam liggéey texte yi préparer texte yi parce que dafa am ay texte ay texte constitutif yoo xam ni dañ ko war a liggéey acteurs yëpp ñu woo leen di leen ko soumettre ñuy xool ndax d'accord ngeen ci lii ndax d'accord ngeen ci lii ba bu ñu bu CNG bi mandaam jeexee fekk texte yi pare bu texte yi pare ñu mun a xool nu ñu demee ci loolu mais loolu amul Mm-hmm. donc CNG bi romb nii dafa raté mission boobu. Mm-hmm. parce que ministre bi aussi dafa ko ko joxoon comme mission bon defu ko ba tey donc defu ko ba tey bon échec la. Mm-hmm. ba tax na du ñu mën a tëb tëb dem ci fédération. donc nii fi ñu toll nii mënuñu dem ci fédération. loolu moom quand même euh, amuñu dara loo xam ne lii liggéey nañ ko parce que bu ñuy dem fédération dinañ defar ay ligue. dinañ xool région bu nekk. ñaata écurie fa nekk ñu monter ligue liggéey ligue yooyu dañu war a daje depuis district yi peut-être ba daj ligue daje bu liggéey yi dajee ak club yi ak association yi existé ñu dem vers une fédération. c'est-à-dire dem defari un def age constitutive defar comité directeur doog a doog a def élection pour président te loolu fi mu nekk nii Cheikh Lamb jiite ji munu fi nekk moo tax il faut ñu demaat. dafa laaj organisation te mbëri fi toll pour nga canaliser leen di la jafe de. noonu loolu du affaire mbër yi. Hmm. c'est-à-dire affaire taxawal fédération du affaire mbër. Hmm. dafa mel ni équipe de football. Hmm. équipe de football dafa am ay joueurs am ay dirigeants. loolu affaire dirigeants yi la. ñu bari fi ñuy juumee nag foofu dañ naan làmb ji matagu te amaguñu dayoo pour yegg ci loolu no loolu du affaire mbër. loolu affaire dirigeants yi nekk ci ci ci écurie yi la. président yi dañu am nu ñu mais boo ñëwee biir AREELS président yi nga fay fekk ay chef de service nga fay fekk ay cadres xam ne ñi quand même xam nañu. xam nañu lan luy association. Mm-hmm. ñooñu ñooy former ji fédération mais du mbër mm-hmm. donc euh, li ñu war a liggéey bari na. li ñu war a liggéey bari na moo tax CNG bon am na lu mu def mais am na côté yoo xam ne ba léegi écurie yi. Mm-hmm. vraiment aussi euh, dañ leen xaw a dañ leen xaw bàyyi gannaaw. dañ leen dañ leen bàyyi gannaaw waxuma mbëri écurie yi laa wax. ci nan lañ leen bàyyi waaw ni leen bàyyi gannaaw mooy tey. kaaw euh, Gris Bordeaux bi am nii rek. du xam naa ni suivre ngeen ko. Gris Bordeaux promoteur jox na ko avance. Mhm. bi mu ko joxee avance dégg nga manager mun a yëgu ko. Mhm. président écurie ba yëgu ko. loolu écurie bi dañ ko bàyyi gannaaw ci ci opération boobu. Mhm. mbër warul signer contrat même bu fekkee hors saison la warul joxante ak ak promoteur xaalis lu jëm ci combat. te écurie bi signé ko. loolu déjà gis nga coow li mu indi. donc déjà boo xoolee ci point boobu. xam nga ne écurie bàyyi nañ ko gannaaw. du dëgg. Ah ci point boobu rek laay jël. nga jël leneen euh, doo combat lu mu rëy rëy ñu ne cent millions la. doo dégg ñu ne écurie bi am na ci 2 pour cent ou 3 pour cent. te équipe football tey ba ci équipe nawetaan bi gën a tuuti bu joué bu ñu paree am na quote-part. waaw wala de am voilà donc écurie bi association la. boo xam ni au delà de mbër mi bëri dafa yor ñeneen ci gannaaw dafa yor ay xale yu entraîné. ñoo xam ne ñii du ñu am nañu ay besoins. écurie bi am na am na ay problèmes médicaux joueurs ba mbër yi dañuy dañuy bëri di gaañ dañuy entraîner di gaañu. Mhm. am na ay problèmes sociaux. Mhm. am na leneen am na leneen. te benn mbër bi fa nekk di bëree di gagné cent million waroon na mun a am benn ristourne boo xam ni benn quote-part bu ndaw boo xam dafay dellu ci écurie bi. Mhm. loolu amul. donc ba léegi écurie yi comme li ma lay wax am na chantier yu bëri yoo xam ni bon war nañ ko xoolaat ba écurie bi. di gis boppam ci làmb ji. mais loolu est-ce que du ñi ñi jiite écrit bi amuñu ci part de responsabilité parce que xale boo xamante ni yaa ngi ko yor bi muy fayee cent mille francs tey muy dem bay fayee ko ay million mënatoo koo téye te bi muy fayee cent mille francs euh, tànk bu mu yëkkati teg boo ne ko bàyyil mu bàyyi mu dem bay encaisser lu mat quatre vingt million mënatoo koo digal mu def mënatoo koo tere mu bàyyi woo ko téléphone sax jot ko day jafe loolu est que. Euh, jotalu ñi nga xamante ne ñoo ŋànk ci écurie bi ñu xoolaat seen bopp. justement loolu du du problème mu ñi ñi ŋànk écurie bi. Mhm. loolu problème mu ñi organiser activité bi la. ñi organiser làmb ji. Mhm. ñoom ñoo waroon fexe de tele sorte que association bi affiliée di gis boppam ci manifestation bi. Mhm. donc ñu bari dañ la dañ naan yéen pareegu leen parce que mun seen mbër yi organiser wu leen déedéet organisation mbër yi CNG bi wala fédération moo ko war a def. de telle sorte que mbër mi bu xasee signé licence tey ci écurie sàkku xam-xam. ñu fexe ba kenn du mun a signé contrat te sàkku xam-xam d'accord. su fekkente ne signé na contrat ba pare ci contrat bi war nañ ci stipuler ne 2 pour cent 3 pour cent ou 5 pour cent dina ñëw ci écurie bi. te dañ koy dagg depuis CNG bu ñu paree versé ko ci contre sàkku xam-xam boo xam dañ koy tijji au nom de sàkku xam-xam. Mm. wala beneen écurie. Mm. loolu liggéeyu structure bi nekk ci kaw la. par exemple lu tax ñoom ñun ñuy raay mbër yu mag yi. Mhm. mais c'est parce que amuñ dara dara luñ leen téye soo xuloox ñoom tout de suite mu génn daal di créer écurie boppam. Mhm. même ci côté boobu ci moralisation boobu ci ci limitation écurie loolu moo ko indi. Mhm. li tax ba écurie yi gën a bari boo gisee mbër mu xuloox mbër mu am problème ak. Euh, seen dirigeant ak seen dirigeant daal dem créer écurie waaw mais loolu lan la ci président écurie bi mun. dara mooy li ma la wax ne la loolu liggéeyu structure bi la bi nekk ci kaw. Mm-hmm. waaw loolu dafa war a nekk ci li nga xam ne ñoom dañ ko war a régler aussi. Mm-hmm. ba mun a aussi défendre association de base bi nga xam ni moo tax activité bi am. Mm-hmm. sinon dafay dafay nekk loo xam ne ñoom dañ koy def toujours mu nekk entre mbër mi ak promoteur bi ak CNG. mais écurie bi nga xam ni moom fa la mbër mi am licence mu affilié ci structure bi du gis boppam non seulement du am du am kàddu. mais du gis boppam ci ci ci manifestation loolu lu jar a xool la. Euh, fi mu toll nii actuellement président CNG. Euh, bu suñu papa Alioune Sarr jékki-jékki woon ne moom démissionné na euh, wala mandaam jeex na du renouveler waat li nga xamante ne mooy màndaam moom doyal na pare na ci CNG bi kan nga gis ni war na fee mën a taxaw parce que am na ci ñoo xamante ne certes ay mbër lañ mais ñoom it ku ci nekk ñu ngi taxaw ci position bu bëgg a yor CNG bi ku mel ni Mouhamed Ndao Tyson euh, Yaxya Diop ni ak beneen mbër boo xamante ni mu ngi tudd nu mu tuddati mbër moom beneen mbër mi technique moom it nee na ah moom it bëgg na doon président CNG ban gis-gis nga ci am. non président CNG. Hmm. du appel ak candidature. Hmm. ba ku nekk war a yëkkati loxoom di wax. su fekkee ba Kanté tamit. waaw loolu yëpp. Hmm. peut-être ñoom dañu bugg wane seen bopp mais xam nañ ne ministre bi neewul ku ko bëgg nekk ku nekk di yëkkati loxoom. su fekkoon dafa ne kan moo ko bëgg nekk ñu yëkkati seen loxo loolu dina am sens. mais ministre bi mooy xool. profil bi nga xam ne war na mun a yor làmb ji. mu dem gisi kooku waxtaan ak kooku ba mun ko ko jox te Alioune aussi loo ci munti loo ci munti dégg aussi kii ñëw dina nekk koo xam ne aussi Alioune Sarr dina ko recommander ministre bi parce que Alioune Sarr am na expérience yëf yi. lu dëgg te Alioune Sarr góoma ne dina tëba tëb noonu ne démissionné naa bàyyi noonu déedéet. li mu liggéey du nangu gannaaw mu yàqu. Mhm. donc waxtaan a ngi ci biir entre Alioune Sarr ministre bi ak ki nga xam ne war nañ ko ko jox. bu mhm. fekkee day dem. Mhm. bu fekkente dafay dem parce que ñu ngi waxoo wax rek waaye ba léegi aussi xamuñu ndax ministre bi dina ko ne toogal ma mandat bu ndaw pour pour defaral ma transition pour ñu jëm vers une fédération. kenn xamul. mais du demee noonu du du ñoo ñu yëkkati seen loxo non. maanaam maanaam maanaam du souvent nit ku yëkkati loxoom du moom. Mhm. kii kii nekk kii yor yëf yi dañ koy fekk fa mu toog ci ruxam ñu xool xam ni mën na mën na ko yor ñu woo ko jox ko. Mhm. ñu bari dañ naan nañ ma fal wóorut waaye nañ ko fal moo gën a <laughs> wóor. voilà <laughs> nañ ko fal moo gën a wóor nañ ma fal. Mhm. lu dëgg mais loo ci munti dégg. Euh, man fi may gën a insister mooy quand même ñu xool tuuti ci biir écurie yi waxuma pas ci biir écurie yi ñu jiitee de déedéet. Mm-hmm. Mm-hmm. mais ñu ñëw bokk ci liggéey bi nga xam ni ñu ngi koy def ci ci CNG de transition bi. Mm-hmm. ñu mun leen ci dugal parce que la ñuy def taxi yi ñuy def daf leen intéressé. li ñu war a moolee ba yegg ci fédération daf leen intéressé. ba tax na lu ñu munti def buñ leen bàyyi gannaaw nañ leen woo ñu dugg ci biir. te tamit képp koo xam ne aussi jóge nga ci écurie comme ñu fa daan nekk sax am na fa ay représentants amoon nañ trois ou quatre. Mm-hmm. dans le comité directeur. Mm-hmm. mais képp koo xam da ngay jóge ci écurie tam pour ñëw boo ñëwee aussi sa mbubu écurie nga mun ko nga mun ko bàyyi ci gannaaw. Mm-hmm. xam ne boo ñëwee aussi dangay ñëw pour vraiment représenter làmb ci lu développer làmb ji mooy comme assemblée nationale. donc ña fa nekk nekk ay député ci ay parti la ñu jóge mais bu xasee dugg ay député du peuple la ñu nekk. donc ñi nga xam ne dañu nekk ci structure yooyu dañu war a wane. mat boo xam ni bon dootuñu am penchant wu fii fii laa bokk mm-hmm. am na solo mbokk yi seetaan wasaare làmb dégg ngeen li nga xamante ni sëñ Fallou wax na ko ci mu doon lépp loo xamante ne njariñu làmb la euh, mu doon loo xamante ni ku ko dégg di nga xam ni kii kat li muy wax macha allah maîtriser na ko tey puis xam na bu baax a baax a baax lu jëm ci wàll woowu ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax sëñ Fallou euh, jël nañ sa temps mais ñu ngi koy tuub bu baax di jégalu. waaw waaw non non moom kay ça été un plaisir pour man. de vous recevoir ici chez moi à à Wakam. Mm. Fass laa dëkkoon. Mm. temps yi laa toog see ñëw fii Wakam cité Asecna. Mm. vraiment aussi maa ngi lay encouragé gis naa émission yi ngay def ak ak Père Birahim. gis yeneen émission yi ngeen di def. mais je pense que c' est li ngeen di def c' est quand même c' est un travail ex extraordinaire. que nous devons saluer parce que aujourd'hui fi ñu tollu pluralité bi am sur le plan des médias. donc dafa dafa vraiment jox. beneen xar kanam làmb ak yenn activités yi. Mhm. donc tey foo dem. Euh, les télévisions de de quartier. Mhm. ak yooyu ñu ngi ñu ngi développé ay activités yu extraordinaire. Mm côté environnement côté sport côté côté boo laal macha allah vraiment les les chaînes